Elage Seydou Ndiaye dal leen jàmm yi nga xam ne dañu koo faatoon ci anam ñaaw yéen bi dañu xamal ne njiitu kay jamono ji lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn ma ngay sàkku ci ki xam ne nag moo di Aly Ngouille Ndiaye ak ki xam ne nag moo di maître Sidiki Kaba ci lépp loo xam ne nag jëm na ci def katu ñaaw tef googee nga xam ne daal moo amoon fi nga xam ne nag moo di Koumpentoum yéenekaay bi di ñu xamale loolee kay la ñuy sàkk moo di lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu mel ñu daal di koy leeral ba mu leer naan ci yéenekaay bi source di ñu xamale kay jamono ji kay njiitu réew mi dafa mel ni kuy accéléré lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu mel ndaxte sàkku na ci Aly Ngouille Ndiaye ak ki xam ne nag moo di ki xam ne moo di Sidiki Kaba waaw Maître Sidiki lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu mel ñu daal di fexe baal ba teg ñii nga xam ne daal ñoo di defkatu ñaawteef yi yi nga xam ne daal ñoo faatoon ki xam ne nag moo di Tamsir Sané jamono jooju la solo yéenekaay di ñu xamale kay jamono ji ki xam ne nag moo di njiitu réew mi lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu kaaraange da ko yitteel lool ci réewum Sénégal Sénégal jamono ji daal lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu banditisme gii nga xam ne daal day am ci réewum Sénégal ay nit ñoo xam ne daal dañu leen di faat ci anam yu ñaaw loolee daal dafa metti njiitu réew mi ba tax na nag jamono jii ne na ci xeex lu ñaaw jamono jii moom la def armam ngir dindi ko ci réewum Sénégal ca jamono jojee leneen loo xam ne dina naqare dindi ci réewum Sénégal libération di ñu xam ne kay mooy drogue bii nga xam ne daal jàppoon nañ ko ci autonome de Dakar yéen i bi dañu xamal ne biir yi kay jamono ji ba ñu ko bi nga xam ne daal moom la fekk ca moom waaw maanaam daal benn dorog la amul daanaka benn différence boo xam ne am na ci seen diggante benn dorog bi la ak lu mën di xew daal mbirum dorog laa tribune yéeni kaay dañu xamal ne bëri na ñoo xam ne daal ma ngi keen di jafe-jafe ca jamono jooju yi tribune dañu xamal ne moo di xale yi waaw xale yi nga xam ne nag ñoo nekk ci réewum Sénégal bëri na ci ñoo xam ne ñu am lanteeg lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu yoon maanaam dix pour cent yi ci xale yi wàllum dorog maanaam daal xale yi daal dañuy ñoll bu baax di tox di mu bu baax a baax yéene kaay bi dañu xamale loolee nag ay jafe-jafe yoo xam ne daal dana ko andil ñi nga xam ne nag moo di réewum Sénégal ca jamono jojee keneen koo xam ne am na ay jafe-jafe yéene yéene kaay dañu xamal ne mooy Adama Gaye moom Adama Gaye démb kay jàllal nañ ko fi nga xam ne nag moo di rëbës as yéene kaay dañu xamal ne kay démb kay mbir ya tàngoon jër la def ci moo di diggante journaliste bi ñuy wax Adama Gaye yéene kaay démb kay Adama daal yëmu ci ndax daal ba mu jàkkaarloo ki nga xam ne nag moo di attekat bi maanaam daal ay kàddu la jël yu sens ju tàng jëri daal di koy teg ci ki nga xam ne nag moo di jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu yoon ci réewum Sénégal yéeni kaay bi dañu xamal ne wàttekat bi kay da ko recadré moom mu jàllale ki scandale bu rëy am na fi maanaam daal mbuxuma détournement bu rëy moo am waaw maanaam ak pàcc rëy kee xam ne nag moo di Seydou Guèye moom Guèye bokk na ci ñi nga xam ne daal dañuy tudd ci lépp loo xam ne nag jëm ne ñaar fukki millions ak ñett lañu ko jëndee waaw déedéet waxuñu loolu de dañ ne juróom benn fukki millions lañu ko jëndee Adama Diop di ñu xamal ne man kay damaa sonn ndax bu fekkee ne dañ maa yoreel di ne bu ma ne ma duñu ah xamal ne maanaam mbaar yi nga xam ne daal dañu ne woon xale yi réew mi ca lañuy jànge waaw te ñu bugguñu ko woon a gis

oto boo xam ne fu mu romb daal nit ñi wàcc arrêt bu mu romb am ñu wàcc PDS gi ñu xamoon PDS gi nga xam ne daal moom daal ca basket ba yéenekaay bi la soxnaam ñëw ne ko mbaa xam nga ne sëñ yow dàq dañ la de waaw yéenekaay bi duñu xamal xibaar ba da koo bett lool leneen lu bette tegtal loo xam ne dina jaaxal askan ñu xamal bi di ñu xamal ne ki ñu xamal ne moo di rakkam joojee daal du samay jamono ji nañ ko jox Modou Lo la nañ ko jox xarañ Lo la wax bu ñu ko joxee dana ko wulli ba mu nooy nepp maanaam daal dana ko daan daan bu ñaaw ki nga xam ne nag moo di goneeg parcelle yi balaa ñaaw ma dem bàyyi leen fi suba rek ma joxaat maam Fatou Kebe ay reenam ngir mu doxalaat li nga xam ne nag moo di revue de presse bi ba suba. El Hadji Ousseynou Ndiaye